la chalette waaw. mais quand même sur ce plan mais est-ce que Pastef a un parti. Pastef am na xaalis. même bu ñu amee fort ab organisation bu ñu amee fort amul benn hôtel buy nekk dans la place cinq fois. hôtel Mame Mbaye Niang réseau de sécurité ñun nag opposition di fa def conférence. wax na dëgg fii moom wax na dëgg. fii moom wax na dëgg. fii moom wax na dëgg parce que nee na hôtel bi dafa jege palais kon Ousmane Sonko di fa defee place conférence de presse mën na indi ab attroupement. et cetera et cetera bu njëkk ba Sonko fu muy defee euh, euh, euh, conférence presse dañ koy tere. déglu leen sax dina ko expliquer fii. waaw mais loolu am na mais peut être loi d'amnistie bi moo tax. loolu yëpp kii daaw li gars yi di plus dans une logique de défendre quoi. donc bu nekkee libre xam nga li ma la wax dama ne. Sonko yàgg na fi réserve ay sànq wala opposant bu ko def feneen ñu ne ko doo ko fi defee pour te dire que bu ñu réserve hôtel 5 étoiles avant ñuy génn kaso lépp a été déjà ficelé tout était déjà ficelé leneen li mooy. waaw ah. comment tu peux justifier le cortège de Sonko. am na suñu oto yu eh. eh. Sonko. <laughs> oto yu Sonko ay oto Macky Sall ñoo ci nekkoon saa mu ngi joxe ay révélation de déglu rek. y a waaw. ceeb Macky Sonko ceeb Sakri. saa saa li muy wax neex na de saa li muy wax dafa neex parce que Macky Sall ak Sonko léegi ay waay lañu. <laughs> kon waa APR fan ngeen jëm fan ngeen jëm Macky Sall ak Sonko ay waay lañu kon yéen fan ngeen jëm waa APR déglu leen. extraordinaire yi ci ëpp Macky Sall moo leen ko jox. dégg bi nan waay la de waa ji. waaw. waaw la lundi vendredi. waaw ci télé wax je m'adresse à i ak son protocole. derrière le président y a un jardin public. i. moom Macky Sall foofu la ñu gisantee ci benn oto. avant muy dem avant muy avant muy dem Ziguinchor am na benn jardin boo xam ne moom Macky Sall toog nañu gisoo gisee kon Sonko ak Macky ay waay lañu léegi <laughs> mais li c'est extraordinaire waa ji li muy wax te moom c'est un homme d'État li muy wax am na fu mu ko fu mu ko teg déggu leen. ci benn oto non non non voilà la président kër président bu ne am na benn école privée école fa nekk. waaw avant nga egg. avant nga egg kër président am na benn école bu fa nekk. école boo jàddee ci école am na benn jardin bu fa nekk. jardin am na benn jardin bu fa nekk. waaw. minuit laa la wax de. i une waaw.

Macky Sall dem na ba ci biir xam ne Sonko il incontre incontournable Sénégal yëpp moom la ñu àndal te vote bi wane na ko est-ce que yaa ngi may dégg mu dem ba ci biir gis ne waa APR mii dañ maa dara sànq mais xoolal li muy nettali comme film ay agent secret ànd ak Macky Sall Sonko di wax toog ci benn jardin mais Sonko gentleman la xool leen Sonko est-ce que yéen a ngi imaginer Macky Sall woo Sonko eh boy nañu tase fii la jardin après xam nga ñu ñu coordonné. d'ailleurs dinaa indi benn balet la un milliard léegi yow da ngay dem Ziguinchor léegi boo demee Ziguinchor nga tàngal foofu Sonko na mais est-ce que waruñu ko defee nii non garaawul xam nga mais comme film comme film parce que les deux frères ennemis te ñoom ñoo took nekk caakiri di diil Sénégal nee naa xam ba waxoon naa leen ko semaine passée Macky Sall pétrole bi moo ko jaaxal waxoon naa semaine passée monsieur Cheikh may ay kër Macky Sall pétrole kaay ñu gérer pétrole bi Sonko nek amul problème Sonko nek amul problème man de façon suma nek président tant que defuñu élection législative duma am majorité kon affaire yu bëri du ma ko euh, euh euh gérer sànq tant que waa APR jàppale wu ma comprendre nga léegoo pétrole bi Amadou Ba am na ko fi bindé dem mu ne Amadou Ba dafa ndoron jël pétrole bi jeex ko wa France Macky Sall loolu la yëg mu xagn ko Amadou Ba légui boo waxtaan ak Sonko mais mok Sonko dañuy dañuy liggéey lan motax Antoine diom ànd ci général Moussa Fall ànd ci Mambay Niang ànd ci ba waji sax di wax ne hôtel Mambay Niang hôtel bi nga xamné ne ñooñu Mambay Niang leen fi indi fofu lañu yobbu Sonko mok Macky Sall tassé ci ben jardin mais li comme film mais c'est extraordinaire li ñaari patriote yi def parce que man néna leen Macky Sall ak Sonko man de dama leen di gërëm Sonko dafa won Khalifa Sall da ngeen di jaay dialogue yeen mënu leen da ngay jaay ñun mënu leen man Macky Sall momo wo momo soxla ne ma kaay ñu dialogue te man je suis réaliste pour dagg seen xol da koy jaral Sonko pour dagg xolu Barthélemy Diaz ak dagg xolu Khalifa Sall ak Idrissa Seck ñi nga xam ne ñoo ñoo ko trahiroon ak ñoom Gathie Val avec sa formation de militaire ñoo ñooñu ñëpp ah da koy jaral mu ne naa toog waxtaan ak Macky Sall lan la koy wàññi lan lay wàññi Sonko du ko wàññi dara Sonko il a tout yi gagner yoo ko xam ne dañoo tasoon sa parti tëj la kaso mënoon leen sax génn réew mi mënoon leen la rey parce que kay sof lu ne wax na ko mi ngi doon wax ne am na ay poison yoo xam ne ah israélien yónni ko man Mister Shake ñëpp xam nañ ne damaa paro damaa am parona noya man ne woon naa Sonko nekk ci kaso bi wóorul mën ko fa kon tey bu Macky Sall ñëwee di la pro mais da ngay nangu pourquoi doon nangu mais Macky Sall moo tey man yàgg naa wax ne dafa war a trahir APR pour sauver le Sénégal Amadou Ba nag bandi sér parce que Amadou Ba moom it da doon surveiller Macky Sall comme ni ko Macky Sall di ko surveiller te amna ño xamné ci renseignements généraux yi yaakaaroon nañ ne xëy na Amadou Ba dina nekk président kon mën nañu fuite yenn affaire yi déggu leen kii waxagul dara déggu leen. elle a elle a rencontré pourquoi. c'était c'était pour discuter de la stratégie c'est Macky Sall qui était le directeur de campagne de de la coalition Sonko et Diomaye. astafurlah waaye saa waay li mu wax neex na de nee na Macky Sall moo doon directeur campagne Sonko et Diomaye Macky Sall du nit nag. ngaay Macky Sall. Macky Sall du nit de est ce que dégg ngeen li wax mais nañ wax ne nag nañ wax rek li mu wax pour argument rek nañu imaginer limu wax dëgg la mais lii lu doy waar la Macky Sall moo mujj nekk directeur campagne Sonko et Diomaye allah allahu akbar Omar Sow Omar Sow li mu wax ëpp na waa dëgg la nañ bàyyi message bi jàll Macky Sall. kii daa doon miin daf ko laaj lan moo tax Macky di taseeg Sonko ci benn jardin lan moo tax Macky Sall di taseeg Sonko ci benn jardin à une heure du matin Omar Sow joxe na benn réponse boo xam ne kii de réponse bu extraordinaire la kii ça va entrer dans l'histoire nee na Macky Sall moo doon directeur campagne Diomaye ak Sonko quoi léegi waa APR bu déggee lii duñu ñu dof déggu leen révélation sur révélation. nekk j'ai le tourné sama bopp mu ngi tourné parce que révélation yi ñoo bëri <laughs> chaque seconde mu def ñu benn révélation bees am na beneen bu neex bu muy waaj a tegal lañ déglu. i milliard. E beneen révélation bi fàtte woon naa ko nee na Sonko toog na ci kër président de la république Mermoz waxoon naa la ko Sonko buy tas ak Macky du doon Cap Manuel kër Palais lay doon wala kër Sonko wax loolu waxoon naa ko mel ma ay kër monsieur man prédiction yu ma defoon yëpp mu ne Sonko mu ne yaay booy ñaanalal Jomaay Fay loolu la Omar Fay wax ne Sonko loolu la wax Marème Fay dañoo def ba juboo mu ne ko yaay booy ñaanalal Jomaay déglu leen. mel ay kër mérité ko de. i finalement c'est Sonko na mooy Gloria dégg waa APR nag ñu ngi doog a comprendre après ngeen di comprendre yéen a ngi rappelé affaire bi stratégie la non stratégie ñoom ñoom waa sama waa nu mu tuddati ñoom Issa Diène affaire bi stratégie di comprendre deux mille vingt quatre gars yi focus léegi nag kii nee na waa APR nag ñu ngi doog ko yow ci Macky Sall dégg la. waaw c'est vrai comprendre. <laughs> ma mooy suivre naa sa logique mais tey euh, Ousmane Sonko. waaw de Macky Sall waaw. pendant deux ans. bu euh, dara. waaw moom également mu jàmmaarloo woon ak moom. partagé leen par la suite ñu ne décrispation dañuy def loi d'amnistie waaw maintenant même à supposer que ma li nga xamante ne da nga ko wax waaw c'est que man sama je ne parviens pas à comprendre pourquoi Macky Sall agirait comme ça dans la moom dafa nekk ki nga xamante ne dafay dem mu agirait noonu également par dem dafay tas tasal lan la ci gagné en retour xam nga en retour nee a voulu fii xam nga lan Macky Sall a voulu deux choses waaw xam nga boo xoolee bu ñu def candidature ba déposé candidature lu tax voté loi gaay question bu grave la ko laaj te question bi man joxoon naan réponse bu yàgg dafa ne lan moo tax nga ne sonkoo tey mooy Macky Sall mooy directeur campagne sonkoo tase ak Macky ci benn jardin recevoir ko ci biir këram Marème Sonko naan Marème Faye yaay ñaanal Bassirou Diomaye lan la ci Macky Sall gagné loolu joxoon naa leen réponse bi neewoon naa leen Macky Sall siège u APR bi bakkanam la ci teg APR l' pour la république Macky Sall moo ko créé te Amadou Ba dafa ndoroon ñëw jël récupérer loolu yëpp looloo gën a bon loo xelu Macky Sall loolu bokk na ci réponse bu muy joxee nañ déglu mais man surtout li tax li tax Macky Sall gën a def loolu man maa leen di jox réponse bi mooy pétrole bi Macky Sall dafa togg ak Sonko mu ne ko saawaay pétrole bi si man la feeñee def naa ci samay projet def naa ci samay xaalis boo ndaree ñëw ndara changer contrat yi day yàqu Amadou Ba mii dafa ndara jël pétrole bi jaay ko France léegi maag yow nañu toog ñu waxtaan nan la ñuy gérer pétrole bi man nag doo ma topp ci dara et cetera et cetera man loolu laa. mais nañ déglu réponse su Omar Sow. xool bu ñu voté loo xam nga nguur moo fiir le président Macky Sall benn moment il a compris que Amadou Ba bi il prend de l'ampleur. dégg nga mu ngi jël dool ministre yëpp ñu ngi daw su dem ci Amadou Ba. dégg nga waaw. gars yi ci affaire jigéen yi di dem ci biir di ko woy première dame affaire jigéen yi. waaw comprenez kii nangu géwal kii. dégg non tuuti kii nangu géw am ku nangu géwal keneen kii. dégg nga géwal. jalousie jalousie ñoo tey kay non tey waaw dégg ngeen géwal bi géwal bi mu bu ñuy wax mooy Ablaye Mbaye Peex ndax Ablaye Mbaye Peex dafa génn mu ne Macky Sall yaay kan yaay kan ba élection du am fii kenn du fi dàq élection moom loo réew mi boo dàqee élection yi ñu ñu génn xam nga Macky Sall loolu la gis ñëpp di daw ci Amadou Ba te kon Amadou Ba bu xasoon nekk président day day dàq Macky da koy génn réew mi nangu APR looloo gën a merloo Macky Sall loolu man wax naa la ko fi chaise boobu. Macky Sall bakkanam la ci teg déglu ci ko député le président président ñu ko monté jaxase ko ñu bëri automatiquement il a compris mu ne attention. waaw jëm fekk boobu mu ñu wax ci la kaso. dégg c'est sûr que loolu prison c'est des c'est des enrichissements avant lii moom lii moom lii moom gëmuma ko parce que moom nena, na Sonko enregistrement yooyu mu defoon di wax ne tànn na Diomaye du lu yàgg nee ci bir kasso ba lañ ko fekk def ko mais lolu mom gëmuma ko Sonko def na enrichissement bu yag Omar Faye mom da nga daanu mais mom nee na Macky Sall moo ay caméra parce que Macky mo choisir Diomaye mo def li mo def la lolu mom lolu mom parce que mom nee na mu comprendre Sonko nan la xana yonent la xanaa yonent la lan la mu waxee ne lii mooy am lii mooy am lii am son mais Sonko yonent la ngeen baal ma dafa bari xam-xam mais Omar Faye moom nee na mënul comprendre nan la soo ko waxee ne lii mooy am lii mooy am man dinañ ma éliminer lii ak lii ak lii déggu leen. ko jox xam-xam la nag. yàlla moo ko ngeen waaw. dégg nga. Ah, ok moo taxoon ma ne leen moo taxoon ma ne leen Sonko yonent la moom wax na ko nee na Sonko wàlliwu rek mais wax na dëgg am na yenn affaire yoo xam ne il faut nga nekk wàlliwu parce que man dama ne Sonko bu génnee ci lii dara dalu ko jomaay nekk président man alukaañ laay dem tabax fa sama néegu ñax bàyyi fu àdduna di jaamu yàlla man loolu laa waxoon xam nga moom tamit loolu la wax nee na mënul comprendre li na yëfu wàlliwu la loolu nag la xamul déggu leen

Sonko ak Macky Sall ay gaañ lañu Macky Sonko grand lé Sonko Sonko gentleman Sonko dara c'est un homme qui est tellement euh, confiant ak Macky Sall du am complexe parce que réaliste. Macky man dama lay man je suis réaliste Sénégal ñoko mom man duma duma yak Sénégal wan la sama doole bo bëggee taal Sénégal Sonko lolo Macky man nga bëgg a ray ma man def vidéo man vidéo Sonko leer na ma am na ci boo xam ne Sonko gën ci boppam ne vidéo bii boo leen ko seetaanee xam leen ne Macky Sall jël na sama bakkan rey na ma bu ma reyee nag du tere projet bi continuer def leen li ngeen def Sonko Macky Sall bu toogee Sonko Macky Sall du am benn complexe waaw déglu leen déglu leen wax ji. léegi soo Macky Sall na écouté ils ont dit que tu perds tu perds le pouvoir tu perds ton parti. dégg ay supposition tu perds ton parti il est intelligent c'est un travail il connaît l'État.

seen wax nii garaaw na de li wax ni garaaw na te man Mister Shake junñu naa ko Macky Sall buy waxtaan ak Sonko da wax lu leer saway bul fàtte ne damaa jënd quarante cinq milliards gànnaay bul fàtte ne GIGN man la ñuy déglu bul fàtte ne commissaire Sangara ci man la bokk bul fàtte ne général Moussa Fall ci man la bokk bul fàtte ne Antoine Diome ci man la la bokk duñu jël nak nguur gi yépp jox la ko noonu caal naatee dañuy ak yow li ñuy ak yow mooy force organisée muy wax looloo waxe Sonko bu demee ba ci biir ñu jox la nguur gi ñu ne pétrole bi dañ koy gérandoo dañuy def lii dañuy def léegi dem ba ci biir nga bëgg ñu trahir bu boobaa dinañ taal réew bi loolu la Omar Faye loolu la loolu la Omar Sow loolu la bëgg wax fii les forces organisées ñu ngi fi de parce que 45 milliards euh, euh, euh, kii ñoom bànjaaki ba léegi ñu ngi fi li mu wax nag c'est grave li mu wax c'est grave mais man tamit junj woon naa ko nee naa ana ana ana nervi ana ana gànnaay mais nag sonkoo du nit koo xam ne mën nga ko menacer Sonko tam mën na mën na wax waaw Macky waaw loo bëgg laay def waaw comme Amadou Ba rek dafa nax Macky Sall loo bëgg laay def loo mais Macky Sall dafa dem ba ci biir gis ne Amadou Ba da kaa tamit mën na nax Macky Sall mais Sonko wu nit la boo xam ne du fen <clears throat> bu nee Macky Sall damay liggéey ak yow du fen du trahir Macky Sall mais Macky Sall kii lu mu wax nee na bu Sonko ak Diomaye bu ñu trahé Macky Sall Macky Sall day taal réew mi loolu la wax fi mu nekk nii <coughs> xaaral message bi jàll ma tegal leen ko. mi ngi wax nag wax yu commencé ëpp. gars yi ngeen dafa bëri ba da ngay jaxasoo dafa bëri ba da ngay jaxasoo li mu mujj wax nii dafa garaaw nee na Macky Sall dafa ndara taal réew mi def coup d'état mooy force organisée Macky Sall moo ko yor déggu leen. waa li cag waaw i. c' est Macky a demandé à Karim de soutenir Diomaye Bassirou Diomaye Faye. i dégg nga. le vendredi statistiques ñu ngi jox Amadou Ba était devant. Amadou Ba moom musul nekk devant moom. seen sondage. moom mos a nekk débat fii moom da daanu fii moom da daanu Amadou Ba mënul nekk débat Amadou Ba moom mënul nekk débat. Macky Sall moo woo Sonko ne ko parce que ñu dem photo Ablaye Wade. ñu dem photo a dégg nga. loolu moom lii révélation bi moom gëm ko. révélation bi gëm ma ko. Ablaye Wade dañoo dem ba ci biir gis ne Macky Sall dafa bàyyi na leen jomaay moo ndara gañe ñu moo tax ñu dem ba leen kii woowee jomaay leen woo jomaay leen woo du Macky Sall moo yónni jomaay. Diomaye moo jël des initiative ak Sonko ñu Ablaye lii moom day wax rek du Macky Sall moo wax gaay gëmuma ko déggu leen. Daouda Daouda attends Daouda il a eu le pouvoir de sortir Sonko de prison il a eu le pouvoir de l'enfermer il a eu le pouvoir d'enfermer Karim Wade il a eu le pouvoir de sortir Karim Wade de le faire le faire exiler. il a eu le pouvoir d'arracher la maison de. gars yi ni tamit. de de Karim Wade. partagé il a eu le pouvoir de de faire amnistier. Mhm. ñoo xamante ne tey jiw na donc si je lui donne le pouvoir j'ai raison moi. su la jotee pour ay ay nga yaakaar am na pouvoir woo Ablaye Wade na ko Ablaye Wade génnal. non non lii moom du dëkk Karim la woo Karim Wade. lii moom du dëkk Karim Wade moo manipulé son papa pour soog a ñëw jàkkaarloo. loolu moom gëm nga ko. Macky Sall dafa Macky Sall xam nga lu njëkk a def premier acte bu mu posé ci biir accord dafa fexe jaxase Karim Wade ak Amadou Ba indi la corruption des juges. waaw wax ne Karim Amadou Ba moo la tere bokk. Bon. Omar Sow travaille pour Amadou Ba, il faut que de la manipulation. <laughs> Pas de <laughs> la chat. Eh, li mu wax fii yëpp am na lu ci nekk dëgg de. Eh, nee na Macky moo dugal Diomaye ci liste yi. ci liste yi man sama bopp baa ngi tourné. Révélation yi dafa bëri. Eh, lii moom dëgg la dégg nga il lii moom dëgg la lii moom dëgg la parce que moom ci Amadou Ba la bokk nee na Amadou Ba dafa ba muy def recours dafa def recours ci ci ci ci def ci Mame Boye Diao mais Macky Sall moo ko tere waaw loolu moom gëm naa ko waay xaarale ma arrêté parce que ngir révélation yi dafa bëri. man sax man sax seetaanu ma lépp peut-être que suba dinaa seetaanaat dernière partie bi wala yéen boo leen amee temps ngeen dem seetaan lan ko seen bopp bu ma ci déggee yeneen yu yu yu yu garaaw ma wax leen man fi mu nekk dama leen bëgg defar résumé parce que damay liggéey tamit aw ma temps waaw résumé bi daal c'est clair résumé bi c'est clair waa APR tas na waaw am na fu muy wax ci fin bi Amadou baa léegi day demal boppam. fin bi nee na Amadou Ba day demal boppam Macky Sall day APR daf fi mu nekk dafa xar ñaar Amadou Ba dafa yor benn partem dafa yor wàllam Macky Sall yor wàllam loolu wax na ko kon APR tas na waaw mais daal li ñuy wax rek mooy man yàgg naa leen wax ne Macky Sall lii rek la mënoon def pour sauver boppam mooy wax na ko sax fin bi am na fu weexee waxee Macky nous a trahi moom daf ci digg bi